te man nañu wax ne tay sañ ñoo wax ne képp ko xamanteni yaang koy jëfëndiko man nga cee yam doyla sëkk ba ëpp woon ngay yité woon ngay naan yitewoo it ngay seeti benen mbokkum sëriñ ngir di ñaan ngir dana la doy ci yépp may bëgg tuddu ak yenen bokk na ci protection ak ar la dana la musal ci shaytané dana la musal ci jinné dana la musal ci bëtt bu ay ciat ak soxor ak liggéey ak yenen yu melni ni te nekkul lu dul ñatt saar mbokk mi da ngay def sa yo jullee suba rek sa yo jullee suba bala nga juk nga ra di jang fatiha fatiha moy alhamdullilah rabbil alamin bam jeex day and ak bismillahir rahmanir rahim nga tari fatiha bam jeex ben yoon nga daal di tari lixlaas lixlaas moy khulfu allah ahad nga tari ko six fois juróom ben yon nga daal di tefli sa loxo dal di ray sa dox bo pare nga daal def lonse barabil falah moom tamit juróom-benn yoon allahumma sabbi fallaahi boo ko defee juróom-benn yoon da koy da nga koy ëf sa wetu ndeyjoor boo paree nga naa def allahumma sabbi naas moom it juróom-benn yoon nga ëf ko sa wetu càmmoñ lii rek la boo jullee timis nga defaat ko kon suba ak timis nga koy def mi ngi noonu képp ku koy def incha allah rabi di nga ci am lu koy sa njort ndax nee nañu jëmmi yonente bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni allahumma sabbi bil fallaahi ak naas wàcc na. lépp lu mu daan jëfandikoo ngir ak aar protection da koo bàyyi yem ci kon doy na sëkk ngir ak aar mu ngi noonu sadaq allahu alazim subhaana rabbika rabbil izzati may sona salaamu xal musalim alhamdulilahi bin alamin waaw ah waaw weccet da génn wàllu maa ngi jégul